koy jóor teg luñ ko fay ak liñ ko may lay yëpp mu ne xaalis baa ngi noonu lu mu am aussi lu mu amul ci àddina rek lu yaayam lu yaayam amul ci moom nit ñee tax Mm. loolu moom dinaa ko fekki àlaxira lu mu def damay ñaan yàlla mu yéex mais lu mu amul woon ci àddina mm-hmm. du mbër mm-hmm. du woykat ñun ñu doon woy sax daf ñu doon jëriñ mm-hmm. man mi sama dëkk ba doon tëgg làmb dafay woo sama yaay mu ne ko mu ne bu ma wooy ne ma jox ma meer bi yaate wa bul togg cere bàyyil ba ñu ñëw ñoom ñoo doon ñëw mercredi moo dem si yàlla mari jon waa ñoo ñoo doon togg cere bu làmb ji commencé woon ñu ne mu ne dellu jënd meew rek. bul jënd leneen nit ku baax aussi. ku mm-hmm. baax ku xolam yaatu nag. Mm-hmm. mais jamono nag moo neexul mm-hmm. instant bii. Ah. loo wax rek. am na sax ñoo xam ne dañuy saaga si internet bi mais mais calculé wu. nit ki li nga xam ci moom bu wax jotee rek wax ko. yaay aji saar ku baaxoon ci àdduna. ku baaxoon ku ah. yaatu woon xol. lépp am na mbër yu bari yoo xam ne wax rek moo baaxul. Ah. mais jëriñ na ay mbër yu bëri du ay blouson yu mu doon jënd di ko jox ay mbër ak ay àndandoom mm-hmm. du xaalis paas yi mu doon doon may mm-hmm. mais xam nga àdduna léegi peut être ñi ñaa wax mm-hmm. mais ñiy wax jëf léegi bëriwul surtout boo dee dañu yomb fàtte Adji Sarr daan ñëw ci moom mu fekk lan fa Adji Sarr nag moom da ko maye woon dëkk bu ñuy wax maya foofu la Adji Sarr yaroo di jàngee jirnda man dama doon woy jirnda di ko fay fekk moom aji moom aji waa problème moom noo ko dundee problème am li ma ko dundee xëy na nit ku nekk rek. Mhm. ak sa vie privée. parce que euh, man li may dund tey mu nekk suma vie privée. Mhm. tey bu ma ko génne woon daay siiw rek. Ah. bu ma ko génne wuta tamit kenn du xam. Mhm. loolu la rek. mun na am mu nekk vie privée mun na am mu nekk loo xam ne daal seytaane rax na ci. Ah. mais lépp lu mu doon daal yal ma ko yàlla. jégal daal maa ngi dégg ñi muy wooye nag ñi naan ëmbaajoo xaw ma mais bu aji aji saat bu wooyee nag war naa wooy non day wax ne nu mbaagee mm. nu mbaagee nu mbaagee mooy ndax munoo leen mm. comme ñi koy awul xëy nag ñoo lee doon laajte ndax munoo leen quoi waaw mm-hmm. moom bu wooyee nag war naa mën a woy ndaxte si yaay waaw wooyee moom war naa mën a parce que si woy la juddu waaw si woy la juddu mm-hmm. parce moom man boo wooyaguma yaayam dafa doon ñëw parce que ñun suñ kër gu mag ñoom yaaxade buñ ñëwoon foofu la ñuy dal ah. su ma deuxième micro léegi boot na Adji Sarr ba tey boot na rakku Adji Sarr di Cheikh ba tey ak ki ñuy woowee tikis mm. am na ñaari rakk yu góor bi yaayam bi mu leen di booteem dafa doon ñëw kër Farba di fay woy di leen di indaale Kumba Jaga di leen di boot. Mhm. ngeen nekkoon si kër gu mag lañ nekkoon si keppaaru Xadi yaay Xadi Xadi Diouf. Mhm. mun naa wax ni moom ak yaay ñoo fi newoon. dëgg la mhm. bu ñu jëlee kii weekend bi ñu jël kële. par la force il faut mu am concurrence. nga xamante ni sa seen lay doon. xam nga yéen bu ñu leen jëlulee ñu jël maye ndeb. daan na leen métti. non non non loolu du cas parce que ku nekk ak liggéeyam parce que yaakaar ni a toog semaine woyuwut. waaw de mosut a toog semaine woyuwut parce que lamb yi du Dakar kese. Mm-hmm, mm-hmm. àll bi moo ëpp sax. du Dakar di tëgg foofu àll bi vendredi soit jeudi lay commencé ba dimanche. Mm-hmm. Ah. soit jeexi ay lundi loolu yëpp am na. semaine bu yaakaar ñëwul Dakar yi tamit mu ngi woon ci àll bi. waaw mais maaye nag maaye nag tànkam daa oyofoon nag. waaw noonu la am nga am nga ku nekk aussi rek. Ah. Ah, ku nekk xam na ne bu woyoon ba mu neex day jóg fecc mm, loolu suñ borom moo ko ko jagle loolu mm. yaa xadi nag moom yaa daa yaa fusoon sax mu du doon fecc mm. <laughs> waaw mu du doon fecc waaw fi ma bëgg a ñëw mooy maanaam tey euh, ku xam Xadi Juuf ne Xadi Juuf Yarwago mm-hmm. dégg naa ne Yarwago seen cosaan yi Xadi Juuf bu dëgg ba làmb ci tàng mm-hmm. dañ daan gis ay jaan si li ñuy wax di génn ah, ñu naan mm-hmm. gan yi bu leen daw gan yi bu leen daw loolu loolu mën nga mën nga ñu ko confirmer la waaw loolu moom mosuma dem woy foofu nag ba gis ko mais mos naa toog suñu dëkk boobu woyaguma sax mhm. sama mag yu ñoo seetaani woon année boobu ñëw dinaa ay yerwaago de pangol kaa sutwa sutwa mooy yerwaago jànne dañoo génn mhm. waa loolu aussi déggoon naa aussi yaa xam di nettali histoire bi mhm. bay naan mbër sum bu ñëwoon làmb yerwaago jaan bu génnee dugg sa teeñ comme ni ñuy teeñ noonu toog ci di daan su ci bi di daan loolu déggoon naa ko ci kii yaa mais instant bu nag dégg naa boobu dañ leen doon def ay kii ay bagages. ay bagages comme di soit vendredi soit ñoom ñoo xam jour buñ ko jour buñ ko doon tour rek. Mhm. instant dañ ko doon tour mais léegi dégg naa tuuratuñ ko. tuuratuñ ko waaw. Mhm. mais loolu daal dégg naa nettali bi. mais nag mosuma koo teg bët. dégg nga nettali bi waaw. jamono jii nii euh, boo ñu mënoon wax tey sa bilan tey saison bi ba mu ubbeek léegi dafa mel ni amul weekend boo toog te woyoo moom amul moom des fois sax da ngay da ngay satiré. jour yëpp laay woy Boucar. boo mhm. bëggee dégg dëgg. du lundi. <laughs> ay mercredi parce que. xew yi mercredi bi paase rek laa doon jeexal ñooñu waaw ay lëndeeg yow kenn xamut. Mhm. dañuy dem rek. Mhm. est yomb na tey yore borom kër yore njaboot aussi vie famille presque daa mel ni du ngeen ko am par rapport ak wëy parce que léegi sax ngént yi ceet yi lël yi lu am ñu woo leen léegi. ñu ne la woy ay ceet ay ngént. dëj des dëj. dëj mun na am sax dëj yu ñu woy parce que comme ah. am na dëj yu ñuy tëgg léegi. Ah. ah mun na am ñu mos ñu ci engagé ñu dem de. waaw waaw comme ñu ngi tëgg ay dëj. <laughs> ndax comme dañuy fayeeku mhm. ko loo ci rëcc wala loo si am lu la neexul si sa cadre liggéey tey lan lay nekk. ah saison bi moom bu bu ma neexoon mun naa wax ne ba may woy ba tey moom ni ma gisee suma bopp ren sax macha allah. macha allah waaw loolu moom ko wax. parce que man maay liggéey. Mm-hmm. man maay denc sama xaalis man mm-hmm. maay cer samay kat mm-hmm. xam naa li may liggéey. xam naa fi ma koy def. xam naa li ma am. xam naa li ma si def aussi. mais est-ce que yomb na tey par rapport ak troupe bi nga yor groupe bi des fois la ngay wuy làmb dix topp la quinze la gauze ku nekk ak li mu war a am tey certes mala yi day am mais tey seen kase est tey warul tey ngeen wu fexe wut solution tey. kase bi mu ngi si 32 personnes. personnes. mu ngi si 32 personnes. yoo xamante ne ñëpp sa ginnaaw lañ. te am na ñoo xam ne ñu ngi woote pour. jàng si ay woy pour jàng si mm-hmm. mais tey boo seetloo lu ñuy fay. Mm-hmm. Euh, dafay doy waa trop. ñaata lañ leen di fay. instant bi xam nga gars fu ñu taxaw Dakar. Mm. Ah. cent cinquante mille maanaam jax moom ma fi fay deux cent mille ren parce que nit ki moom da ngay wax rek li am man du ma nëbbatu mhm. parce que boo nëbbatee sa feebar doo doo wër doo wër jax moom ma fi fay deux cent mille mhm. mais même làmb stade yi nii sax combat ay boo demee pour woy ñoom dañoo complot fi mu nekk nii bu la nit woowee nga ne lii ñu ne di wax na ma ne mbaa wax nañ ma ne fan fanweeri junne yaa ngi dégg mhm. te loolu aussi si ñun la woykat yi rek man damay wax saa su ne comme ñun bu ñu booloo woon doon benn comme nekkul le kese mooy woy mhm. buñ nangoo woon doon benn rek mhm. mun na am mu kii doon benn bi mooy jotewuñu dara nag ku nekk da ngay dem liggéey sa liggéey mais comme buñ defoon entente mhm. def benn groupe boo xam ne dañ si dajaloo suwaat kër ko benn woykat boo xam ne chaque semaine ñu dem def fa réunion teg lii moo fi nekk par force day am. Dakar temps àll bi temps. àll bi temps am àll bi sax parce que mm-hmm. lamb moom lamb la rek parce que boo xoolee Dakar. Mm-hmm. benn fay nga fiy ñëw woy waaw mais bu dee àll bi moo gën a métti. Mm-hmm. parce que fii dañ la fi fay benn fan bi xëy na fanweeri junne boo demee ci àll bi. fanweeri junne boo leen ko waxee parfois ñu yuuxu. ñu yuuxu waaw. te quatre jours la ñuy teg ou trois jours. trois jours waaw kon loolu dafa métti. te parfois da ñuy gis. Mhm. man damay ñëw ci làmb ji indi làmb jee passé li ma fi indi dix neuf personnes laa fi indi. ñu fay la fanweeri junne boo amul may la doo ci raate. doo ci mhm. Mhm. te lu bëri lu lu ne la lu ne la ñuy dégg. ñu lu ne. parce que ñi ngay àndal am na ñoo xam ne dañ lay topp bu neexee ñi dañoo jàng si pour mën. xooluñu sax xaalis mais am na ñoo xam ne dañoo ñëw. pour uniquement lépp luy dugg si poset bi ñoom ñu ngi koy yurndu. ñoom pour ñu am lu jëm wooy ñoom ñu ngiy calculer ay may la. dafa am. métti na trop si métti na trop keroog ñu gis aussi nga jóge terrain gaal gi mhm. enchaîné aussi demaat face à ba mu guddee mhm. coono bi te ku ne xam ne woy wax rek tey ñun ñi di toog si ah. mhm. de temps dafa métti wala nag tey kii yuuxu nekk jigéen jóge fa enchaîné loolu yaakaar naa aussi gars yi war nañ si mën a xoolaat aussi ah muy promoteurs yi ba si CNG xool trouver solution tey ñu jàppale woykat ah si ñoom daal la des parce que CNG sax. Mm-hmm. peut-être jàppale si ñoom la war a njëkkee. Mm-hmm. mais boo seetloo. Mm-hmm. ñoom du ñu wax waxu woykat. waaw ndeysaan te peut-être woykat li muy woy woyu làmb la rek. waxuma ñi woy olof ñun làmb la ñuy woy ci lañ ñu xamee. te ci lañ nekk boo gisoon sax tey ñun ñuy dem di jéem a seeti leneen di jéem a moderne tuuti. pour jéem a euh, def musique. waaw dañoo gisu suñu bopp ci làmb ji rek. parce tey mun nañ kaasal mbër. waaw mun nañ kaasal. Euh, amateur mais mosuma toog dégg fu ñu waxee woykat. woykat mhm. te boo seetloo tey euh, dañuy tëgg ay chef de l'état. Mhm. bu njëkk bi dañ doon fay trois cent mille. mais man bi ma mujjewee deux deux cent mille la ñu fay trois jours yi. dañ ko wàññi. dañ ko wàññi. du yoon dépense bi dañ ko wàññi te loolu yëpp warut. du yoon. te tey ren li fi nekkoon rek moo fi war a nekkat. parce que li ñu doon financé pourtant li li ñuy financé bu normal amee war nañ mun a fay woykat cinq cent mille su buñ munta fay un million. mooy yoon ci chef de l' parce que trois jours la ñuy tëgg. trois jours la mu nekk drapeau du chef de l' état. Mhm. bi ñu koy budgétiser di leen woote di leen jox benn dix millions. Ah. ñu gis bi passé ndar ku su mel ni Eric Favre ñëw sponsorisé leen. daanaka angu frais yëpp. 50 millions ah. sax 50 millions la budget bi yëpp. son ah, ah, andi andi lu extraordinaire. mais nag man chef de l'État bi waaw 60 millions dem na ba 60 dem na ba 60 millions maanaam maanaam prix mise bi moo nekk 10 millions. mais frais d'organisation bi day dem ba 60 millions. parce que bu kaw la frais d'organisation bi 60 millions la woon. war nañ ko mën a fay 3 jours chaque jour 150 000. au moins. au moins muy muy 500000. waaw au minimum. parce que comme 3 jours la ñuy tëgg. Mhm. te ñoom bu ñu leen engagé ci làmb nee na 150 mbaa 200000 la ñu leen fay. Mhm. nag da war a jox 500000. dañ ci war gis seen bopp loolu tamit ñi ñi xamuñu ko. Mhm. ñi ko war a kaas buñ ko xamulee xam duñ duñ ci mën a. waaw comme nag ñi ko war a kaas. ñoom duñ ko kaas. man personnellement moom man moom ku ma mere concerné wu man damay liggéey rek. c'est te woy chef de benn at la. Mhm. damay woyal nit ñi sax chaque jour dama dem woy parce que mooy sama métier. Mhm. kon ma woy ko ak ma ñàkk ko woy laa yemale. mais képp kuy dem ñoom dañuy seet te yàlla tax. parce que mhm. nit ñi dañuy dañuy yóbbu ay groupe groupe boo xam ne ay dix personnes. bu njëkk dañ doon calculer nit ñi nu ñu toll. ku nekk dépense temps temps mais loolu yëpp dañ ko wàññi. te nekkul lu war nekkul yoon. ñun bi mu bi ñu demee fii nii fi ma mujjee dem nii Diourbel. guddi gu njëkk ba man maa dindi cinq mille mhm. jënd ndox pour lu ñu raxasee suñuy duus mhm. si suma xaalis mhm. fi ñu lay dalal déjà day xeebu du normal te ñun ay nit lañ rek duñu ay mala dañoo bàyyi ay lal yu baax bàyyi ay néeg yu baax di dem pour lu ñu am kon ñoom fu ñu ñu bàyyee seen lal yu baax ya dem di dalal seen bopp fu noobul lu ñuy def gestu woykat yi ak tëggkat yi man nag li may wax waxuma ko pour man personnel ci ñëpp ak képp koy woy ñu lay jël di lay yóbbu chef de mhm. na ñuy seet seen diggante yàlla parce que fii alal fii la yem lépp daay mhm. jeex mhm. mais li la warloog doomu aadama yi def ko ba mu mat dëgg la liñ leen di finance ak lu ñuy jox nit ñi ça fait deux nañu gëstuwaat nit ñi xaalis daay jeex fii la yem dëgg la waaw yaakaar naa am na solo xabtalu yi des fois mbayang wuy ba xabtalu yaramam tàng micro central bu ñu ko nee mbayang noppil mbayang bañ <laughs> table technique bu ñu ko nee mbayang mayñu mbayang bañ <laughs> lan la ah. bu bu ko damaa bëgg li may def nag. Eh, bañ naa ko ba bu ma jiitalee nii woykat yi du ma nangoo toog ca kër ga ba mu guddi. guddi ok. parce que boo toogee ca kër ga di dégg lu ñuy wax parfois nga dégg koo xam ne mënul woy. Hmm. dala daf may déranger man. ok man li may def dama ko gëm. Hmm. dama koo bëgg te yàlla tax. Hmm. parce que moom rek laay def. defuma leneen à jóge ci làmb dem sama sey. aw ma leneen lu ma def. Mm, jaayoo xanaa lekk lu may lijjante suma bopp. di jéem a lijjante ay business. Mhm. ñoom Fallou Ndiaye Jesner di may jàppale ak ñoom kan Jesner. ñoom kan Jesner. ma mhm. si góorgóorlu tuuti ak suma jëkkër di def. Mhm. moom it maa ngi koy gërëm bu baax a baax. ju ko baax la. jàpp na ci bu baax a baax. tey mun na fi dalal tey te laaju la tey. sa diggante ak Modou Lo. Modou Lo xarañ loo naa too na ñoom naa commentaire yi sax gars yi ñu ngi koy laaj ah sa diggante ak moom ak wéy boobu <laughs> aussi ni nga ko fentee ba vraiment wéy bi waa yàlla mooy boole ay nit rek. parce mm-hmm. que woy bi boo seetloo woy bi yàgg nañ ko woy sax. Mm-hmm. te Modou Lo bu ma gisee si télé la rek. yàgg nga ko woy naa woy woy bi. Mm-hmm. parce que benn xale bu góor bu dëkk fa oy Mindo Sarr maa ngi koy nuyu bu baax moom it. moom it ñoom dañoo nekk ay góor yoo xam ne dañuy woy. te di di ñuy jox ñuy jëriñoo moog ñoom Ousmane Diegane. moog ñoom kii naka waa Mar bi. Souley. Souley ak nit ñu bari daal ñoo xam ne. peut su suñu liggéey la nag. kon des bu ñu joxee ñu def bu ñu joxul ñu def. parce que man moom. Mhm. fent wooyu moom yóbbu